xamante ni euh, mooy revue de presse bu euh, sunu làmb wula la 14 euh, octobre 2021 si loolee sax ginaaw bu ñu taxawalee seen combat diggante Balla Gaye numéro 2 ak ki nga xamante ni mooy Bombardier Balla Gaye numéro 2 moomee rek dafa mel ni noppiwul benn yoon di wax si combat boobee moom yi nag si mercredi bii rek la jógee fii si Sénégal dam foofee ca Paris ca INSEP ngir waajal li nga xamante ni mooy combat waaye nag mu doon préparation. bu muy def ginnaaw ba mu taxawalee seen combat moom la Gaye euh, numéro 2 moom nag combat boobu rek ñu jàppoon ko le samedi samedi bii nii nga xamante ni mooy premier euh, janvier bu atub 2000 loolee moo tax kii di Balla Gaye numéro 2 jël li nga xamante ni mooy vol pour dem foofee ca France ngir ba jël li nga xamante ni mooy combat am moom ak Bombardier ginnaaw ba ko Bombardier daanee nag moom Balla Gaye numéro 2 wax na rek nee na combat revanche boobu rek du mës yomb ginnaaw loolee rek moom Balla Gaye numéro 2 noppiwul benn yoon naan man maa ko gën a nekk xale maa ko ëpp physique te maa ko gën nekk jeune maa ko ëppi doole waaye yi yemul foofu nee na bu jugee foofee ca France ca INSEP ñëpp dinañ xam ni indaale na doole te dina ëpp li nga xamante ni mooy bombardier naam sax bombardier nu mu toll nee na loolu yëpp du doole waaye bu jugee France rek moom Balla Gaye numéro 2 mooy wax ni ni mel nee na bu jugee ca Paris rek ñëpp dinañ xam ni moo gën a nekk en état kii di bombardier waaye ñëpp nee nañ bombardier nag dafa am li nga xamante ni mooy hygiène de vie moom rek moo gën a nekk mag waaye jamono mu ngi gérer li nga xamante ni euh, mooy euh, carrière am loolee sax moo tax euh, technicien yi naan kii di Balla Gaye numéro 2 waxuñu sax amul li nga xamante ni mooy hygiène de vie waaye boo xoolee ki nga xamante ni mooy bombardier dafa mel ni moo gën a nekk ci tempo mu doon nag combat bi nga xamante ni amateur yëpp ñu ngi koy xaar ndaxte Balla Gaye numéro 2 rek moom combat dafay neex waaye rek lu ñu leen di xamalaat rek mooy Balla Gaye numéro 2 jóge na Sénégal ci mercredi bii ngir wutali foofee ca France ca INSEP ngir. waajal li nga xamante ni mooy combat moom ak Bombardier euh, bu Mbour mu doonoon combat bi nga xamante ni jàppoon nañ ko sax waaye nag lii di génnub àdduna bu Double Less di woy jur bu góor ci ki nga xamante ni mooy Balla Gaye 2 loole moo tax ñu puusaat combat boobee nga xamante ni kii di Gaston Mbengue moo ko tëgg ñu waroon ko amal nag ci mois de novembre bi ci atub 2021 waaye loole loolee mujjul antu ndaxte nag kii di Balla Gaye 2 dafa amoon nakar nakar bu mu bokk nag axlu làmb loolee moo tax mu puusaat làmb ji waaye jóge na Sénégal ñu leen koy xamalaat ngir dem foofee ca France ngir waajal ki nga xamante ni mooy euh, Bombardier bu Mbour mu doon combat boo xamante ni ñëpp koy xaar waaye si loolee rek ki nga xamante ni mooy euh, Pape Thialis pap caalis rek naam sax ñëpp neewoon nañ ko combat bu dox diggante kii di Tapha ak Boy ñaar dinañ ko reporter. waaye loolee daa mel ni mujjul antu ndaxte El Hadji moom li nga xamante ni agent la si Tapha Tine moom rek wax na ak téléphone ki nga xamante ni mooy euh, Papa Thialis moom mi nga xamante ni moo tëgg li nga xamante ni mooy combat bu dox si diggante Tapha Tine ak Boy Niang numéro 2 bu Pikine moom rek nee na ginnaaw ay rumeur yu mu dégg si si combat yi nga xamante ni moo doxoon si Balla Gaye numéro 2 ak Bombardier wala Ama Baldé ak Modou ak Tapha Tine ak Boy Niang nee nañ combat yooyee bu ñu mujjul bu ñu moytuwul rek. Euh, du am waaye nag kii di Pape Thialis moom mi nga xamante ni moo tëgg combat boobu mu ngi assuré ki nga xamante ni mooy El Hadj Thioune moom mi nga xamante ni mooy agent bu Tapha di ko wax ni combat boobee rek dara mënul a tax ba du am ndaxte combat boobee rek naam sax dégg li nga xamante ni mooy ay rumeur ni combat boobu du am waaye ñooñu rek dañuy mujj fande ndax combat boobu dinañ ko amal si le 19 décembre jotee rek si atub 2021 combat boobee rek dina am ndaxte mu doon li nga xamante ni bonne nouvelle la si ki nga xamante ni mooy euh, Tapha Tine ak ki nga xamante ni euh, mooy euh, booy Niang numéro 2 ñoom rek ginnaaw loolee sax ñu ngi doon préparé seen combat waaye jamono ci nag bañ déggee ni Pape Thialis rek nga xamante ni mooy seen combat wala du ko ñu ngi waajal seen combat nga xamante ni bañ ko tëggee ba léegi si atub 2019 la maanaam am na ñaari at bañ ko tëggee ba léegi waaye rek daa mun ne ab kontante la si ñaaru mbër yooyee ndaxte dinañ tooyalaat seen ngemb ngir jàmmaarloo ñoom ñaar lu ñu leen xamal rek yéen mbokk amateur yi mooy combat bi dox si diggante Tapha Tine bu écurie Bawol ak ki nga xamante ni mooy Boy Niang numéro 2 moom rek nekkee foofee ca Pikine mu doon nag combat bu ñëpp di xaar ndaxte Boy Niang numéro 2 bi mooy ñaar yoon muy dugg si cour des grands mu doon chance bi nga xamante ni kii di Tapha Tine may na ko waaye nag Boy ñaar 2 rek bu ñu gisee rek ak formam daa mel ni indaal na li nga xamante ni mooy ndam si le si le 19 décembre jotee mu doon li nga xamante xamante ni bu ñëpp di xaar waaye nag combat bu ñëpp di xaar mooy combat bu dox ci fils de Balla mu nekk ci écurie Balla Gaye ak ki nga xamante ni euh, mooy général Malika nekk Malika mbooloo mu doon combat bi nga xamante ni combat bu amateur yëpp di xaar la ndaxte balaa ma ci tijjee ba léegi ginnaaw marle ak ni ko réel la daa mel ni naka combat bi nga xamante ni kenn tëgg ko ku duut as as Assane Ndiaye bi nga xamante moo tëgg combat boobee rek ñu war koo amal le 24 octobre si vingt 2021 mu doon combat bi nga xamante lu bëri dina fa am comme ambiance comme kii moo koy wax muy muy Assane Ndiaye mi nga xamante ni moo tëgg combat boobu nee na naka ambiance bi dina fa am ndaxte ku mel ni Sidi Diop moom dina fa ñëw ak Nico na ak Mbayang Lum mu doon loo xamante ni combat bu ñëpp di xaar la waaye combat boobu rek nga xamante ni moo dox si général euh, Malika ak euh, ki nga xamante ni euh, mooy fils de Balla nekk ca écurie Balla Gaye Balla Gaye numéro 1 doon combat boo xamante ni combat bu nar a neex la ndaxte boo déggee seen face à face si mardi bi ñu génn rek fasa à bu neex la ndaxte lépp luy moo génnee nañ ko fa waaye mu doon euh, drapeau ki nga xamante ni mooy meeru Médina muy Bamba Fall bi nga xamante ni it mooy euh, parrain bi lu am sax euh, ki nga xamante mooy mooy face à face la maanaam ñaari mbër yi ba ñuy jàkkaarloo ca mairie bu Médina lañ ko defee woon mu doon combat bi nga xamante ni Sénégalais yëpp wala amateur yëpp nga koy xaar ndaxte boobee rek mooy premier grand combat bu ñëpp di xaar bu saison deux mille vingt et mille vingt deux waaye si loolee rek kii di Bamba Fall moom rek nee na kontaan na si ki nga xamante ni mooy Assane Ndiaye mi nga xamante ni moo ko jël daf ko li nga xamante ni mooy pare si combat bu dox si diggante Fils de Balla ak ki nga xamante ni mooy général Malick rek mu doon combat bu ñëpp di xaar kon mbokk internet yi loolu rek lañ leen indi loon si revue de presse bu sunu làmb bu 14 octobre 2021 jaa ngi jëf